soo xalamee maam sunu ibrahima bam laata am xalilan ak xalima noonam ya génne nañ ko muy bay feela ba yàlla ren ni loo ko ismaila ñu dellu taalal ko bënn ak namrosa def ko ca biir yàlla seral solom sa seetal ma yonnen ba ñu naa yanqooba gu mën ay at di palantu nee ba dadaa si mooy ronkoñ gannaaw bu yuusufa sangoo ba fum jekki saxoo yaa asafa soo xalamee yuusufa ak mbokkam yaa delloo xalam kasoom ba ak tuumaam yaa